appliqué. les assises nationales am na fi réforme sur le foncier am na fii. sénéri sénéri am na fi ah. rapport yi bëri na de. bëri na ah. ah oui donc. Euh, audit les est-ce que est-ce que ñu dépoussiérer affaire dem génne ko. les audits sur le les recommandations. dialogue bu mujj bi ça fait des mois. ñaata et puis ma ma ma je suis tellement d' accord ak yow li nga wax noonu vraiment euh, mënul ñàkk fii ci réew mi koo xam ne war na mun a toog ak Ousmane Sonko ak. parce que ma ma ma j'ai déploré ñu jàpp nit ñi di ñu jàpp je lu fekk lu toll ni Colbiac ñu taal ko lu toll ni jàkk ñu taal ko parce que lu Sénégalais bi toog fële loolu moo koy loolu moo mooy garaaw ci moom. loolu loolu mooy gravité par rapport ak oto bu ñu taal wala kër politicien bu ñu bu ñu attaqué wala yooyu. mais Maria xam nga ce qui est dangereux hier j'ai dit malheureusement malheureusement euh, ñu ci bëri ci ñun jotuñu dem ci ay dëkk yi nga xam ne mm-hmm. ils sont dans un kaw ma ne man ku mel ni Blaise Compaoré soo ko waxoon nag il aurait suffi la moor d'un seul manifestant pour que nga ñàkk sa nguur. mu ne la déedéet. parce que durant tout son magistère y a eu des morts d'hommes. Mm-hmm. Ah, Yaya Jammeh ku ko waxoon ni que il aurait fallu la mort d'un inconnu pour qu'il perde son régime cest à en fait ce sont des de des des des des vecteurs de violence yi nga xam ne. Mhm. kenn du ko kenn du ko soupçonné te kenn du ko xaar. xam nga y a une violence bi nga xam ne dañ koy xaar dañ koy gis. Mhm. on voit venir mais ce type de violence doo ko gis mooy bu ñu demee ba ay juma ay corbillard euh, di tàkk et tout sax sa à on dañuy dugg ci benn cercle bi nga xam ne kenn dootul mun a maîtriser c'est-à-dire que. dañuy mer non les gens mer nañu ba pare. mais léegi le problème kii ah. mooy que man je ne regarde plus monsieur Camara wala Maria comme un sénégalais comme man je le regarde comme quelqu'un d'autre c'est là foofu nañu àgg comme foofu nañu àgg en fait c'est c'est c'est c'est ça mmh. moo tax nag da ngay gis on se il faut même pas être étonné euh, nga dégg suba ni que y a eu telle autre chose une médicale wala leneen nag leneen la ñu taal il faut pas être étonné parce que les gens sont dans cette logique de se défendre ou de faire mal dans cette logique plutôt de faire mal parfois. on est dans ndax si vous avez depuis quelques années mais amatul sénégalais booy xool mu yéene moromam jàmm. y en a plus. en tout cas il suffit de voir les fils sur Facebook. Ouais. pour comprendre le degré d'animosité bi nga xam ne moom la ñu instauré au Sénégal. est-ce que du loolu la Serigne Mor Mbaye doon wax ba muy wootee. le ndëpp national hmm. hmm. oui mais il faut qu'on fasse attention. il faut qu'on fasse attention parce que. tey jii koo xool c'est un ennemi baaxul yow yaa baax. xam nga loolu lan mooy danger bi mooy. Ah. noonu lañ koy freiner. li koy déclencher yomb a mais lan moo koy freiner moo jafe. il y a que la justice qui peut régler les problèmes. waaw ouais, ouais, ça c'est vrai. il la justice qui peut gis nga soo xoolee Rwanda ni ñu génnee seen situation bi c'est pas Paul Kagame. Hmm. il s'est arrangé il a chercher. les meilleurs magistrats en Angleterre les meilleurs magistrats un peu partout dans le monde ñëw teg pour bâtir une justice Rwanda amul kenn ki nga xam ne xalaat na ne que Albert moo ko gën wala diw moo ko gën. pourtant moom ci ñoom la gënoon métti. te ñoom la gënoon métti moo tax ma ne la nag il faut qu'on revienne à ce à cet idéal là c'est-à-dire une bonne administration de la justice d'abord. euh, que les gens n'aient plus cette perception ou bien cette euh, sensation que tant que tu es de l'autre côté lu la neex defal ah. cette perception là c'est ça qui est en train de nuire donc les gens vont aller crescendo vers des règlements de compte personnel jarul may dem ci yoon parce que dara dara du